mune ma legui dañuy jaar relé bu nu jaaree relais ma am luma fa jël ñu soko a dem sali mané ko wa baxna amu problème waxale gunu dé mune ma bu nu àggee relais fi mu toll bu ma la bu nu ba pare ñu soko dem mané ko wa baxna lepp ma maa ngi taw diko deglu yalla mi dara taw ñu dem ba ëgg si relais mu dugg ci biir na ma garel ma garé mané ko légui ma ngi julli tisbar bala ngay pare man dama dem jax nga biir relé amna na ju ndaw ju fa nek Hah? yàlla mi dara toog ma dem japp julli mu pare def na fa lu mat une heure de temps nag génn ak ndaw si mu ma léegi nañ dem marché parcel bele ci école Dior ma ko ah, mi dara ma dawal ñu dem may dawal mu ne ma jeng ma xol mu ma ma xool sa portable no tuddu ma ne ko Mortala Dieng ma ma sa portable ma xol ko ma lay jar day sama patron mako may jëndu yalla mi dara tawul nak mu ma waa dama ci bëgg jëndal sama jàppaat mo le big bi may ñëw aéroport bi dafa guddii motax motax yalla dogal na mënu ma koon am ci yoon yi kon xam nga kon lima la doon wax na la ku ci dé ñu la yobbu ay ñu la yobbu ya kuy tukki ñoo la yobbu moy firndi bi yalla mi dara tawul ñu dem mu jël sama portable ak portable lu ndaw si dugg ci biir marché bi dema dama dem lu ma une heure de temps ndaw si daari di jékki na wa ki du ñëw ah ah ko wo ba xam Ya mana man kay dana manako ci lam yow neena jabaram nga muna musu ñew damay wacc sama sama bagage dem manako bagage munu wacc ya wali kay yow ya kay bu takaliko police lañu takaliko wala mom mu ñew dara sina ha manako waw muna ma legi man na ma bayyi sama pochette ak sama affaire fi dem xol ko ci biir marché manako waw ma xol mu bayyi fi carte dem dugg ci biir marché bi vérifier ba sonu dik ak betami toy ne gisuma ko manako lo mana manako yow xana do jabaram mana ma no duma jabaram manako yow la fek ngeen and bam na ma soxnam nga dañuy and ngeen la ñu and dem salé mu giñu wat dama dama ko lan nga mu ne manoo dama ko xamni manoo ko kon am nga problème nañ dem police mu ne woon police manoo ko police parcel gëna gën gëna jégé école jor di dawal wuti police parcel. dañuy ñëw ba ju police parcelle mu ne ma may ma tuti ma taxaw mu ne ma légui comme dem na ni nan dem asalem amna sama rakku jëkkër bu fa nek bu ñu aggé yalla dogal na ni ci visiteur yi lay liggéey bu ma demee dinaa fa jaay sama ceen wala ma tay la ko fa ut lu ma la fayee waaye man xam naa ne maay perte naa ma ne ko yow loo seq ak waa ji mu sëgg jooy ma laaj ko lu mu seq ak waa ji mu sëgg jooy ma laaj ko lu xew mu sëgg jooy ma ne ko yow mii soxna si doo ko bon de mu ne am na ko xam naa ne yow mii am nga problème mu ne ma waa ji li mu def samay mbokk laay ba ñu yokku ndax yàlla dogal na damay ñibbi côté Tiwaawoon sama borom ko manako borom ko nga am ko law am ak moom ba xam moom rôle polis, tek manako nañ dem police mu police ni yaay ma fa nekk moo nekk ca brigade ba li la baye ñu dem ba Asalem yalla dara tawut bi mu dikke nak ci la bi ko def limi def ñu and mo ne ma wacce ma parcel ma yobbu ko parcel ci ben tantam mu ne ko dañ ma don agressé dañ ma doon agressé taximan bee yem ci man moma dimbali andi ma ba fi ndeysan lu ne mu daj ko ci man fam bi genn dama yow yaa doon dimbali sama doomu mag bi man ko ah man day ma andak mom diko doxali course mu ma course yi ñaata la man ko ah laaj ko mom xamna course yi ndox yeb ñu dugg ci biir ci la maire bi genné expliquer ma mu ma ñaata ngay wersi ma expliquer ko mu dem ba ma yow bo xëyoon fi doon man auto la yor sa auto bi ñaar lu muy lak man ko auto bi def bu ma xey bu ma xey bu ma lakul 20000 dina lak lakk wala 18000 huit maire bi yëkkati 60000 jox ma ne ma baax na ma ko waaw ndaw si nak ñu tagu tàggatoo fofu mu dem dik mer bi na ma di nga toog xaar reer manako yalla mi dara tawut xamna ne fim tole ni mom dama damaa guddee añ wax deug sal dama guddee añ yalla mi dara tawut bi ndewé bamay dem nak mu may gungé ñu taxaw ci buntu bi manako nak aduna gi ni taxaw fen ta doo ma jarala fen mais bu lang daaron rek mu naan ko do na waxi mer bi deug mais manan nga ko ne tay ji reele laa la ndax duma fen taxaw ju ma ciy caaxaan mu ne ma sang mo sutura manako comme la demee mu naan ko yalla na la yalla sang sutura way rek na la ben affaire manam ko wonde latal sa jamono nga xol fi ngay tek sa tànk da xamne bu la dara jaral ci aduna fi ngay tok di wanteer sa jamono mara naan nag bu la taxee naan raxasit rebi naay ubbi léegi bi wëlbati ko ruus te la dal ni ci la jeki jékki nag gagn gagn di joy ma gor premier dem bayiko fa waye nak man buma nekkon ko waye di mom xoma nak ño and mom ak waji di ma dil xoma ño na waye gi nga ñun la ñuy del ci taxi bi mo raw kaani xegn man buma waye di won jour bobu duma am versement du ma am gasoil te 11 h ci suba la and ak waji dem le relais dug dug bir Dakar ñu dox seen course ma jóge fa dem ak ñoom relais fa lu mat une heure temps fa ñok ñom marché police parcel kon xam nga ne kon man buma nekkon ko waaye di damay gañu da duma ma dem ci sama patron naa ko léegi lii ma dal léegi lii ma dal du am luma ma motax nak yi ni yalla dogal nak ngeen nekk ci réew mi ah di xaw di and ak di xaw di journaliste yëf yi war ngeen ñuy dimbali ci lu bari war ngeen ñuy dimbali ci lu bari ndax aduna fi mu toll moom toll na ma bo xamna ni sonn nañ trop sonn nañ trop te fi mu toll nii demee na noo xamante ne nii sa mooy loolu